anglais dafa am solo ndax mën na ni xëy na euh, bunt la boo xam ne wala caabi la boo xam ne dana ubbi opportunité yu bare bare bare bëri fi mu toll nii boo génnee Sénégal foo leen foo dem da ngay soxla anglais néew na nga làkk anglais doo am ku la tontu moo tax tey ñu ne kon jaadu na centre bi euh, dem ci terrain bi waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak ministère yëpp pour ñu ñëw ñu ànd ak ñoom.

ñu accompagner leen ak ay professeurs yoo xam te ni da leen mën a encadrer pour ñu mën a euh, jàng anglais ci anam yi gën a am solo. waaw fay bi nag daanaka sax amul solo lool ndax xam nga CPLA euh, ni nga ko waxee rek euh, administration la bokk service public la daanaka c'est presque gratuit waaw lu néew rek ngay participer. loo xam ni voilà benn décret nag moo ko moo ko àll moo ko moo ko moo ko dogal que ku fay dugg lu tout ce qui est scolarité ak euh, frais d'inscription dañ koy verser trésor public loolu lu ndaw la rek loo xam ni amul solo lool mais par rapport ak yeneen institut de langue yi ak yeneen kii yi foofu moom da ngay moo ñu c'est cher parce que c'est privé fii nekk du privé daanaka daal amul solo lool. donc ku ci intéressé daal boo ñëwee centre ba dañ la yàlla suñu buntu dañ la expliquer ni muy doxee ba nga mën a inscrire jàng sa anglais am ci sax ay lijaasa yoo xam ne dana permettre boo demee ci privé bi. voilà man ñu man laa jël ci bu gaaw ndax léegi daanaka projet yi ak ONG yi boo déggul anglais daanaka dana jafe pour nga mën a liggéey ak ñoom